أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن نداء الأول في كل رسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه العبادة لله وحده هي الأهد القديم الذي أخذه الله على بني الإنسان وسجله بقلم القدرة في فطرهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصلية منذ ودع في رؤوسهم أقولا تعي وفي صدورهم قلوبا تخفق وفي الكون حولهم آيات تهتدي ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم عباد الله هذا الأهد بين الله وعباده هو الذي صوره القرآن في روعة وبلاغة حين قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون بكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تسنو تربرام noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ci bés yu mag yi nga xam ne moom la ñu nekk muy fani tabaski noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yal na nu yàlla nangul nangul leen sunu xutba tey mooy annidaa'ul awwal fi kulli risaala mooy woote gu njëkk gu yàlla musa woote ci bépp mission lan la sunu borom subhaanahu wa taala yonent yi mu mës a yónni yépp ndawam yi mu mës a yónni yépp ana lan la leen wax mooy ibudullaha ma lakum min ilahin gayru bépp ndaw lu ma sa yàlla ma sa yónni bi mu ñëwee li mu wax moom ndaw loolu moom yonent boobu mooy jaamu leen yàlla amu leen kenn kot ku ngeen war a jaamu ku dul yàlla jaamu yàlla googu mooy ahdul qadim mooy pak mooy dig gu njëkk gu sunu borom subhanahu wa taala bind ci ak doomu aadama keroog ba yàlla di bind nit di ko defar keroog ba yàlla di tabax doomu aadama sunu borom subhanahu wa taala la mu namm bëgg ko ci doomu aadama boobu mooy doomu aadama bi jaamu ko loolu la yàlla bind moom la dogal ci xalimaam nga mu doon wax kun fayakun wa sajjalahu bi qalami alqudra fi fitarihim albashariya fitra gi yàlla binde doomu aadama mooñ gi yàlla mooñ doomu aadama ci lan la ko mooñaale mooy doomu aadama na jaamu yàlla moo tax ku jaamul yàlla rek perte nga ak koo mën a doon ak koo mën a nekk ak ku la mën a jur soo jaamul yàlla perte nga parce que defoo li tax yàlla bind la sàkk la yàlla li tax mu amal la mooy nga jaamu ko moom la wax ne bi mu lay bind lool la la bindee mu ne wa garasahu fi tabaiihim al asliya nee na ca martaba yu njëkk ya ca étape yu njëkk ya ca démb ca yàlla balaa ñuy ñëw ci kaw suuf yàlla jubluwaayam mooy ñii may defar suñu wàccee ci kaw suuf duñ fi def lenn duñ fi occupé lenn lu dul topp ma man yàlla tabaraka wa taala ne loola tax munzu wadaa fi ruusihim uqulan uquul yoo xam ne tayi bi ñu yàlla di may xel xel yoo xam ne dañuy comprendre di dégg di xam di mën a ràññee lan moo tax yàlla defal ñu xel yooyu pour ñu mën a xam lan la ñuy ursi ci kaw suuf pour xam kan mooy yàlla pour mën koo topp ndeke looloo tax yàlla defal ñu xel moo tax ku nekkul ci jaamu yàlla ku ne daf laa neex ku nekkul ci jaamu yàlla ku ne daf la neex ndax yàlla defal na la loo xam ne mën nga kaa ràññee mën nga kaa jaamu mën nga kaa mën ngaa xam dëgg ak lu dul dëgg waaw kon soo dëngee rek soo ñàkkee topp yàlla subhanahu wa taala yow la du kenn kenn réeralu la yow yaa réeral sa bopp ndax yàlla defal na la ay jumtukaay ay outils yoo xam ne kenn mënu laa sànq kenn mënu laa def loo leneen lu la neexul soo doon joxe misaal ci bëccëg yi nu nekk tey su nit boyaloon matt ba mu boy daal la na dugalal sa loxo ci biir taal bi boo paree ma may la ñaari junni loo ñàkk ñàkk dépasse doo ko ci dugal lu tax ndax sa xel moo la war a wax ne ne ñaari junni jaru ko ngay dugal sa loxo ci taal un million sax jarul ngay dugal sa loxo ci taal wala misaal boobu sax xëy na dafa metti dafa sori su la benn waay waxoon ne sa am nga ñaari bët waaye yow sama waay teeg maa jaay sa benn bët bi comme man sama bët bi dafa xaw a gis wala dafa pat jaay ma sa benn bët deux millions ndax di nga jaay sa bët bi doo ko jaay noonu ngay xalaatee ci sa xel suñ la waxee loo xam ne yow daf lay lor arrangé wu la ba ci xar mi ñu doon jënd rek semaine bii rek fan yi xar mi nga doon jënd bi la jaaykat bi waxee lu la arrangé wu dafa ne ko non loolu jaraluma ko noonu nga ko rombee dem ci keneen waaw lu tax kon jaamu yàlla su jotee mbokk yi bu nu nee jaamu leen yàlla rek ñu lànk wala ñu am dégginu jaamu yàlla mooy bàyyi ba àjjuma jot rek ñu ñëw juma wala wala julli kese moom mooy jaamu yàlla ak a bëri ci sénégalais yi koo wax dafal nangam mu ne la non man daal vraiment julli maa ngi julli quoi maa ngi julli ñun suñu déggin ci jaamu yàlla yëpp mooy maa ngi julli soo jullee rek après jeex na lu la neex defal léeg-léeg sax nga dégg kuy waaraate daan ne doomu aadama sax noo mën a mel moom na nga julli waaw waaw en tout cas julli gi am importance jullil déedéet du loolu de jaamu yàlla aw dundin la ni ngay dundee julli gi woor bi aj màkk takk soxna am njaboot ut kër hatta kër gi ni nga koy tabaxee da ngaa war a laaj yàlla subhanahu wa taala hatta duus bi bunt bi fu muy jublu su ma duggee ci duus bi naka laay toogee su may génn naka laay génnee loolu da nga ko war a laaj yàlla ba pare ndax jaamu yàlla mooy aw dundin kon mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala looloo tax mu may ñu mu def ci sunu bopp yi ay xol ay xel yoo xam ne xel yi dañuy comprendre waaye mu def ci sunuy dënn ay xol yoo xam ne dañuy dégg xol yoo xam ne buñ leen waxalee yàlla ñu xam ne dëgg-dëgg yàlla mooy dëgg waaye gis ngeen tey xol yooyu ñoo wow summa qasat qulubuhum fa hiya kalhijaara aw asaddu qaswa li yàlla di wax ne kallaa barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun xol yi ñoo xomaat li tax xol yi xomaat na xol yi dee du leen dul bàkkaar yu bari bàkkaar su baree ci doomu aadama day rey xolam day tax jumtukaay yooyu yàlla mayoon la élément yooyu yàlla mayoon la pour nga mën a dégg pour nga mën a xam pour nga mën a ràññee pour nga mun a xam sa borom élément yooyu dañuy dee bi ci njëkk mooy xol su sa bàkkaar bëree sa xol day dee lan moo ciy tegu mooy sa xel day fattu lu ciy tegu mooy dootoo comprendre da ngay tëñëx tëñëxi di dem looloo tax tey jullit yu bari ci Sénégal di tëñëx tëñëxi di làmbatu seen diine bal sax ñu nekk ci seen diina ay al toppe inna wajadna abaana ala umma ñun dey suñuy ndey ak suñu baay daal lu nu fekk ñu nekk lu nu fekk ñuy def rek ñun lool la ñuy def même bu fekkee ne seeni ndey ak seen baay teguwuñu woon ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ñoom la ñuy topp ndeke du hasard yàlla may nu ay xel yàlla defal nu ay xol yàlla yemul ci loonu mu ne wa fil kawni hawlahum ayatun tahdi même ci li leen wër ci environnement bi ci univers bi yàlla nee na daf la defal naa leen ay jumtukaay yoo xam ne suñu toppee univers bi sax daal di jub ñëw ci man inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wannahaar la ayatin li ulil albaab borom bi nee na nekk na ci kéemtaan yi ma def pour ngeen xam maay yàlla wuutale gi may wuutale guddi ak bëccëg ñaar yooyu rek doyoon na nit ñi xam ne yàlla mooy yàlla guddi ak bëccëg lampe bi nekk sa biir néeg soo ko bëggee taal lëndëm dem leer ñëw foog nga dégg benn son foog nga dégg benn bruit bu contact bi di def bal yenn saa yi sax lampe bi def réaction ci kaw nga dégg ko amma guddi ak bëccëg ban bir yu ngay dégg bu ko yàlla di génne bu yàlla di génne guddi di dugal bëccëg ban bir yu ngay dégg mu tax mu ne la ayatin li ulil albaab su yàlla indee guddi fu bëccëg di nekk su yàlla indee bëccëg fan la ñuy denc guddi su ñuy nekkee ci guddi ñiy nekk ci bëccëg ku def loolu allahu subhanahu wa taala moo tax mu ne la ayatin li ulil albaab bu nit ñi borom xel yi xel yi nga xam ne lëndëmul xel yi nga xam ne fàttaagul suñu xalaatoon yàlla rek danañ xam ne dëgg-dëgg yàlla yàlla waaye nit ñi seen xol yee dee loolu tax yàlla ba muy bind doomu aadama ca aalamul arwaax ca azal bi ñu nekkee ñun ñëpp ay ruu ca yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne alam ahad ilaykum ya bani adam alla taabudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin yéen doomu aadama démb ca azal ndax waxuma woon ak yéen su ma leen bindee ba wàcce leen ci kaw suuf bu leen topp seytaane yàlla yemul ci loolu sax dafa wax ne démb ca azal ca asamaan ba ñu yàlla bindee di ñu dugal ci baay ndigg baay aadama mu ne wa iz axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum bi yàlla bindee ruu yi ñoom ñëpp ñu toog taxaw ci kanamam moom jalla jalaaluhu sunu boroom nekk gu ñu ay mbindeef ay ruu lañ ca aalamul arwaax yàlla subhaanahu wa taala war a jël ruu yooyu dugal ci ndiggu aadam balaa yàlla di dugal ruu yi ci ndiggu aadam dafa wax ak ruu yi ba pare alastu bi rabbikum ndax moomu ma leen duma seen boroom ruu yëpp ne aha kay yàlla yaay sunu boroom mu dugal leen ci ndigg baay aadama daan ne dem leen ci kaw suuf ci aadama ngeen di jaar ci aadama ngeen di génnee pour ngeen ñëw ci kaw suuf ñu ne cëpp gaa yi commencé génn ku nekk daal di bersa daara daan ne ah maa waxoon waxeet maa ne woon yàlla yaay sama borom waaye daal non ndeke fekke naa dëkk bi dafa neex su ma bëggee topp yàlla day métti ci man yàlla lim ma tere dafa bëri kon daal naa ber sama daara ndef lu ma neex loolu moo nu dal waaye foofu yàlla bindoon yi nekk ay ruu nekk gu ñu ay jëm ñun ñëpp a nangu woon bi nu yàlla laajee ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñun ñëm ñu ne balaa aha kay yàlla yaay sunu borom yaanu moom yaanu sàkk yaa ñu bind yaa nu yar yaa nuy dundal yaa nuy rey ñëm ñu nangu yàlla ne comme nangu ngeen lool nag ci seen ndiggal bàyyi aadama ngeen di jaar pour mën a dem adduna ñu ne cëpp adduna kumb seytaane jayñu bakkan nekk sunu kanam njaboot ak xéewal ak wërsëg ne jàmbang sunu kaw ñu daal di fàtte lan moo nu indi woon sunu borom subhanahu wa taala nee na li taxoon ma def loolu li taxoon ma dajale leen ci sama kanam laaj leen kuy seen borom mooy an taqulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin xam naa doomu aadama xel mi ma ko defal su ma ko deful woon loolu keroog ëllëg nag ba yowmal qiyaam ma woo ko ne ko waaw yow lu taxoon bi ma la wàccee ci kaw suuf ne la jaam ma nga lang danaan yàlla waxoo ma woon dara nag yaa ngi nii nag waxoo ma woon dara dëgg maa bind rek wàcce ma noonu nag moo tax yàlla nee na ma defoon loolu laaj la question ba nga tontu ne yaay sama morom ma doog laa wàcc ndax ëllëg yowmal qiyaam kon boo fi ñëwee da ngay wedd ci sama kanam loolu la nu aaya bi wax mu ngi ni sunu kanam yàlla yemul ci ne da ngeen di weddi waaye mu ne aw taqulu mu ne ñeneen ñi ñoom dañ naan innama ashraka abauna min qabl wa kunna zurriyatan min baadihim yàlla man de wax dëgg yàlla bi ma ñëwee ci àdduna man man tooñu ma la de sama papa ak sama yaay mii toog ñoom ñoo la tooñ ndax ñoom ñoo ma wanul woon dëgg ñoo ma doon takkal ay galañ ak ay weñ yu ñuul ak ay lam ak përëm ak xaaw di ma bokkaale loo ba ma réer ñoom ñu ngi nii waaw yow léegi yàlla nag afa tuhlikuna bima faala almubtiluun ndax ñooñu jàddaloon ñu suñu way jur yooyu réeraloon ñu ñoom ñoo tax tan tey nga bugg ñoo mbugal dégg nga gis nga ñeneen ñi loolu la ñuy wax waaye tey ñaari question yi yëpp benn yàlla du ko ci du ko ci nangu lu tax benn yàlla du ko ci nangu parce que yow yàlla waxoon na ak yow direct balaa sa ndey ak sa baay yàlla waxoon na ak ñun mbokki jullit yi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فلا عجب أن يكون المقصد al a'zam min ba'sati an-nabiyina wa irsali al-mursalin wa inzali al-kutub al-muqaddasa huwa tazkiru an-nas bi hadha al-ahd al-qadim mbokk yi du nekk kéemtaan bu kenn ci ñun waaru bu kenn ci ñun jombi pour mu nekk jubluwaay bi gën a rëy bi tax yàlla yónni yonent yi bi tax yàlla yónni ndawam yi bi tax yàlla wàcce téere yi téere yu sell yu màgg yooyu bi du lenn lu dul pour fàttali doomu aadama eh balaa ngay ñëw suuf am nga loo waxoon ak yàlla loolu nga waxoon ak yàlla mbaa fàtte woo ko ndeke looloo tax yàlla yónni yonent yi looloo tax yàlla yónni ndawam yi looloo tax yàlla wàcce téere yi pour ñu fàttali ñu démb lan lañu waxoon ak yàlla balaa ñuy ñëw ci kaw suuf ah waaw mbokk yi ndax ñun ëllëg am nañu lay ci kanamu yàlla ñun wax nañu ci kanamu yàlla ne waaw yàlla yaay sunu borom ñu ne cëpp ci kaw suuf àddina commencé neex ñu commencé fàtte yàlla yónni ay yonent yàlla yemul ci loolu yàlla wàcc ay téere pour ñu fàttali la li nga waxoon démb ci sa kanamu boroom Hmm. allahu akbar jigéen buy sëy dañ koy taaj ci ëtt bi ku nekk di ko wax di ko dénk su egsee ci kër ga muy sëy ñu dénkaat ko su demee ba commencé jàdd gaa yi daal di ñëw toog ne ko yow lan lañ la waxoon di ko fàttali lan moo taxoon muy ñëw ci kër gi di sëy si waaw doomu aadama yàlla bi mu ko bindee wax ko li tax mu bind ko yàlla wàcc ko ci kaw suuf doomu aadama jàdd yàlla wàcc ay yonent pour ñu fàttali la yàlla wa- jox yonent yooyu ay téere pour ñu wax la lan nga fi utsi al ahd al qadim wa izalatu ma tarakama ala ma'di al fitra min gubaar al ghafla aw al wasaniya aw al taqlid bokk na ci tax yàlla yónni waat yonent yi mooy yàlla dindil ñu li raj-raj loo sunu kaw ci ay jafe-jafe yoo xam ne ay pënd ak ay poussière yoo xam ne càggante moo ko waral doomu aadama yi tey toll nañ ci àdduna foo xam ne ay vague ay vague ngelaw ay vague pënd ak poussière moo sëpp ci xelu doomu aadama yi ba doomu aadama yi mënutuñu gis yàlla tabaski lañ jóge wala ci lañ nekk tabaski bii nga xam ne yàlla moo nu ko sant da ngay gis sax doomu aadama yi mënatuñ ko def ni leen ko yàlla sante man de ba léegi bàyyeeguma xar kër ga kër ga ba léegi indi lu ma leen xar kër ga kooku moom amul tabaski ndax kër gi moo tax muy tabaski man de ba léegi jëndalaguma soxna si tabaski kooku amul tabaski man de xale yi ba léegi jëndalaguma leen tabaski ay bu ma tabaskiwul ren fu ma jëm koñ bi lu ma leen di wax léegi ana yàlla ana yàlla lan la yàlla waxoon lan yanaala allah luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum du xar mu ngàndalaa soxna de dañu dem daral barki dem di jënd benn xar moo laaj borom xar bi xar bi lu muy yar mu ne ma sept cent cinquante mille ñu daal di koy romb dem jënd 15 xar 15 xar ci 750 millions yooyu daal di koy saraxe fi sabilillah kon xoolal borom 1 million bi kii jënd xar 1 million 500 ñaata nit la mën a dimbali ndeysaan waaye déedéet balaa ngay xam ne puukare la ñu xëy suba comme tey ni ni ñu defoon ah xëy suba takk xar yi ci bunt kër yi. tey am na ku ma doon reyal xaram mu ne oustaz bala ngay rey xaaral ñu jàppal xar bi ma ne ko bii de du jàpp xanaa yow mal xiyaam lay jàpp waaye du fii xar dina jàpp xar lu yoonam ci jàpp yow lañ sant nga jàpp parce que yow lañ wax nga jaamu yàlla waaye ñu jàppal xar mi ma ne ko bii de du jàpp tey xaw ma yi passé de ay bu ko rey ma randi xar mi ba mu egg ci suuf fu ñu jàppale diine yan ban diine la ñuy jindul bi li yëpp lu ko waral mooy li ma doon wax léegi ay vague yi pënd moo muuru suñu kaw ba mënatuñu xam li yàlla bëgg fop sunu jaamu yàlla ñu dugal ci ay aada wala tànku njëkke tànku bàjjan dënnu maam baasu feeskat geenu xawma la ilaha illallah xar mi day dem ba yàlla du ci am dara noonu la ci jaamu yàlla yëpp noonu la ci ngénte yi noonu la ci dëj yi noonu la ci lépp parce que lu tax xel yee fàttu loolu tax yàlla yónni yonent yi pour ñu effacer xubaar xafla poussière u càggante googu wa isalat ma tarakama yàlla nee na nanu dindi li raj raj loo sunu kaw ci ay jaamu xërëm alwasaniya xoolal tey bi ñuy rendi da ngay gis ñoo xam ne bi ngay rendi ñu ngi ñëw di càpp ci deret ji di di di di di ko def seen i jë deret deret xam ngeen ne sobe la deret jooju di génn ci xar mi sobe la looloo tax xar mi bu deewee noonu kenn rendiwu ko ñu ne la bul ko lekk parce que dafa médd deret jàng ci biir soo ko rendee ñu ne la bàyyi ko ba mu wéqu ba deret yëpp set après deret jooju ngay lekk ci biir yàpp bi amul sobe deret jooju baax na dara nekku ci jéggal nañ la ko waaye leneen li bu tuuroo ci sa kaw lu ëpp juróomi dërëm sa yàpp yàqu na da ngay nga gis ay nit ñëw di ko capp di def ci seen i jë di bokkaale yàlla naka la nit di cappe deret di ko def ci jë parce que leerul parce que suñu diine moo leerul bokkaale yàlla di xërëm ñenn ñi jël yeel yi da nga dem bu ngeen paree ngeen dugg ci kër yi di ngeen fekk jigéen ñi di defar yeel yi di ko denc naan tam xarit la jëm yaa yeel yi ku ko lekk da nga fekkee waat tam xarit loolu fan lañ ko jàngee fan lañ ko bind ñenn ñi dañ jël béjjén yi def ci ay daangam nangam béjjénu xaru tabaski xaru tabaski kenn du sànni dara gis nga béjjén bi boo ko jëlee ba def ci nangam ak nangam béjjén bi bu doon aar du aar mu aar xar mi béjjén bi bu doon aar mu aar xar mi moo tax man la suñu xel yooyu lëndëm naka ngay amee xarum tabaski rey ko fees ko lekk yàpp bi seeñu yax ji der bi nga daaj ko di ko jullee nga jël béjjén bi takk ko naan ku ma laal ana fi mu nekkoon ku la laal dara ana fa mu nekkoon laal nañ ko te dara parce que xel yee fat yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko pour ñu dindi poussière u lëndëm waaye poussière u xërëm waaye yàlla nee na pour ñu dindi toppandoo pour ñu war a denc toppandoo toppandoo gi ñuy toppandoo dafa doy ab jullit du nekk toppandoo kat imma yonent bi nee na laa takun imma bul nekk al toppe ñun tey julliti Sénégal gi yépp ay toppandoo kat la ñuy toppaate lan la ñuy topp lu bon kenn du roy lu baax ba ci yére tabaski da ngay gis ñu yow yére góor jigéen yére boo xam ne tey boo doon jàpp doo mun a lem loxo bi pour jàpp foog nga simmi mbubb mi yére góor jigéen la yére boo xam ne comme potu meew te léegi góor ñoo koy sol ñenn ñi di ñëw ay soie te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soie ku ko sol ci àdduna pare nga ci àllaaxira doo ko sol waaw duñu wax nit ñi dëgg lan moo nu daal dañuy toog nii nag bàyyi nit ñi ba ñu dee yàlla fuub ñu ñun ñëpp yóbbu safara parce que nekkuñ ci dëgg loolu du diine diine laayante biir la wax nit ñi li fi nekk suñu bëggee jël suñu bañee bàyyi mu daal di set wécc ci kanamu ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi loolu mooy al ahd bu yàlla jël diggante ñi xam ak ñi xamul wallahi boo waxul yowmal qiyaam yàlla dina la ngalaab ngalaabu safara comme ni ñuy ngalaabee fas yi ci biir jahannama loolu la yàlla wax kon foog ñu wax foog ñu wax ko man saa fal yumin wa man saa fal yakfur ku mu neex gëmal ku mu neex weddil waaye responsabilité bi na wàcc yal nan yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nan yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله